ñu buñu dem rek ci diggante guuy gi ak Ada Fass sëñ Moussa hmm diggante guuy gi ak Ada Fass waaw combat bobu dafa jaay boobu ba pare te bëree guñ ko dëgg la ndax ki di Ada Fass waaw limu gëm moy que guuy guy gi mënuma tee ci lamb dëgg la waye guuy gi limu gëm moy hmm xale yépp mën nañ ma daan c'est pas Ada Fass waaw motax combat bobu suba combat bu doy waar ñom ñaar dëgg la te guy gi dafa doon mbër moo xam ne ni sëñ Moussa. Hmm. en général képp ku ko bëgg ku ko bëgg humilier rek. waaw mu toroxal la. mu toroxal la. dëgg la de. sëñ Moussa boo xoolee euh, guy gi. Hmm. mbër yi ñëw yëpp de dama koy dama koy daan. Hmm. mujj caamee lu leen neex. benn xel rek de ko fi daanagul muy rëg-rëg. muy rëg-rëg. waaw. waaye xale yi bëre yëpp. walaay. ñu am ay ndoon ay yaakaaru làmb tey. a ñoom sita ay sika Sita ñoom ñëpp waaw ay ñoom Ama Balde wallahi ay ñoom Sarko waaw ay ñoom ama neex bi wallahi ndeysaan lol ñëpp amna fu gouy jaar ak ñom wallahi amna fu mu jaar ak mbeur mo xam neena naa ne bu paree daan ko yombut dedet gouy gi bu ko ku ko jàppee ni bu ko jappé tankam yoy nonu hmm yaangi joom deug la gouy gi tankam yoy ku ci dal ku ne fek mu deug hmm mun na la daan jël bo xam say mbokk dinañ mer deug la Sëriñ musa Guy gi bu entraîné kaw ga ba kaw kaw ga taxaw. Guy gi dafa am benn benn dafa am benn xeex bu muy xeex boo xam ne am benn jàpp bu muy jàpp. am benn barakaas bu muy def boo xam bu la ko defee. waaw Sëriñ Moussa bu doole doole kaw. ak ci di nga daanu jël xam la. di Ada Fass. moom itam dañuy yaakaaru làmb. dëgg la. di mbëru gox. di xale boo xam ne aussi dafa gëm boppam. waaw yaakaar naa tey bokk na ci samp ba naa bokk tey ci samp yoo am tey ci lamb joo ub lamb ji. Mhm. ngëm-ngëmam moo ko may. dëgg la moom itam suba dafa war a mun a prouver. Mhm. daan pour mun a acte pour mun a jëri gaay ci kaw. wallaay dëgg la. muy combat boo xam ne sëñ Moussa nag. Mhm. Euh, aada. bu mu naagu ba mu ëpp. bu mu naagu ba mu ëpp. déedéet. dëgg la. bu mu naagu ba mu ëpp. buñ na ya yaa buñ na ko rek euh, yaa mun guy gi. waaw yaa féete xale. Mhm. ba mu bëri waale loolu bëgguma lool ci COPA boobu. kon dafay ñibbeem leneen de. bëgguma lool ci làmb jooju. wallaay dëgg la. guy gi aussi. Mhm. bu mu ne. Mhm. booy bi dafa daf may booy bi xale la bu mu jaay ji koy ji koy xale. waaw waaye naa ko sa morom. la indi gi suba. waaw dama naan ko bi soufflé dawgal say hmm fat say fa Wow. ay sa garde taw xaar ko deglu ko est-ce que bu déclenché nga riposté def arrière def def arrière wow dox bu riposté nga dox nga nga dagg la waat bi arrière dëgg la soo ko defee trois fois xale bi day naan xale bi day xale bi day daan dan kii dama dama day xeex day ñëw carrément waaw su la gisee foofu ngeen dagg xeex njumte mun na am. dëgg waaye su ma la mhm. ko indi woon suba. Mhm. dama naa ko bu at bi soufflé. Mhm. bul bëree guy gi ca kaw. bul nangoo bëree guy gi ca kaw. dëgg la bul nangoo jàppanteeg moom combat bi di diire. sooy daan guy gi. ragal daan ko ci ay minutes yu néew. walaay dëgg la waaye bu ngeen bëree cinq minutes jëm ay dix minutes. day nekk ci biir combat bi bu ca nekkee musiba dina am. wallaay dëgg la. arbitre bu soufflé. Mhm. toogal sa sa garde. Mhm. fàtt say fanaa. diree mhm. ko booy dox si koom direekul. direekul. te chaque jour sa chaque jour sa chaque jour sa loxo droite bi. na aju ga aju sa kaw ba nga xam ne ba nga xam ne ku ku ku bi muy dóor ku dégagement la dal. dëgg la. ndax guy gi. am na courage dégagement bo xamné bu dalé waw day yak lamb wallahi dëgg la. am mbeur yo xamné xam ne ñu mu bëré yu bëree bëree bëri combo moo yàq làmb jooju. dëgg la aba bra bi dafa diis. Mm-hmm. te benn yak la. waw tay itam buñu jappanté jàppante ba roofante. Mm. su ma doon su indi won tay Ada hmm dama naa ko dama naa ko jàppal gi ba mu dëgër. waw nga dengañ ko ràcc say hmm Fakal fakal fakal kor ko dóor ko ñaari ko mu sigi waaw nga rox sa loxo dugg nga rox sa loxo dugg sa franc ba bu baax a baax a baax mhm. ko ba mu ñëw mhm. nga baaje ko doo ko caxabal wéeru ko mu jaaxaan allahu akbar wala nga fat wala nga fël flan wala nga fël loxo bi jaar ca flan ba bul génn ba jeex bul génn ba jeex bu suru ko nag sànne tuur ko tuure ko wet dem sa yoon dëgg la waaye su doon guy gi dama naa ko boo jàppal teg aada face ndengeñal bu fexé sa bop di fété kaw deug la ndengeñ ko ci suuf xañ ko bëre ba fexeel dur ko ma énervé mu def action nga rappel ko nga nga nga rappel ko sa nga rappel ko tuur ko la ñaari la guuy gi mën daane Ada Fass suba xeex ak hmm mu jël coup deug la wala mu jàppante ak mom do ko ndengeñ tak tak ci loxo tak ci ca géej ca ba mu dëgër ada dafa def action mu ada mu braque ko mu def braque tour ko deug la combat bu suba hmm combat bu doy war la wallahi deysan combat bu doy doy war la way nak dama gis ci guuy gi ben signe signe ibu Wow. bo xamne neexuma dara man waw muy kérok bu muy def euh, point de presse waw boy xol bu waxe ñaar yoon mu ngi sekkat dina ndox melni ku toy wala ku dog Moussa signe bobu neexuma de wa deug bu entraîné rek day def tooy. dëgg la. mbër dëgg dëgg dëgg dëgg bu entraîné. waaw. day tooy. dëgg la. loolu du suñu dara suñu tooy la. waaye nag moom itam suba. Hmm. combat bu nag moo gën a garaaw ci combat yu am suba. Ah? combat sarax la. la ilaha illallah. li nga combat bu sëñ Moussa. waaw. day daan ci sarax ngay daan te bu lamb ja jeexee. Hmm. am na koo xam ne sëriñam da koo woor ba pare ci làmb jooj te xamu ko. waaw. am na ko ci sëriñ wor. la ilaha illallah. ndax bu làmb ja jeexee. waaw. ba def déclaration maa ngi bëri def déclaration ku journaliste jëli leen. Mhm. loolu dina ci génn. dëgg am na koo xam ne sëriñam sëriñ wor na ko ci komba bi. est waw que. waaw. la ilaha la mu yà du am. du am. waaw. est jërëjëf yaaram est-ce que. ci sos. waa sos na. Liss Ndiago. ak ak waaw. muy combat bu neex. booy xool booy xool comme journée suba bi yëpp grand contre petit la. tout grand wallaay ndeysaan. xam nga sos suñu toll nii. Mhm. Euh, dafa amone ben lance bu amone ci dan ci lamb ji. waw dal fi ki nga xam ni moom mooy guy hmm dal fi isaapu yi. waaw. daan aussi am na ku fi tegaatoon na ko daanaat ko. ki la kooku dëkk Lamsar Tidiane fay Tidiane fay waw ci lance bu doy war waw ci ki nga xamni mom moy Ada fas Ada ne guy gi euh, da doon daan aada doon daan aada. Ada Fass yàlla moo ko suturaal mais da doon moo doon ñàkk keroog dëgg la. te si accident boobu ñu doon defoon. Hmm. lu soobee Ada Fass da ci dëgg la. su du woon loolu. Hmm. Ada Fass doon perte boobu combat. dëgg la. mais loolu moo yàq làmb dëgg la. je euh, bukki bukki bukki timis la. bukki timis la de. boo ko dàqee sa gëtt bul nelaw wallaay dëgg la day ñëwaat mhm. te itam bëre booy bëre moom bu ko xeeb dëgg la ndax mbër la moo xam bu ñëwee ak entraînement mhm. ñëw ñëw ne ñëw ne dooma daan waaw parce que boo bëre ci action dana daan la ilaha illallah ku weddi booy weddi ku weddi na nga laaj booy ñaa dëgg la ba ñaa ci digg mhm. gis nga nam ko def la guy gi ba ci digg gis nga ne ko def seen premier combat ba. dëgg kon ki nga xam ne moom mooy Liss mm-hmm. la mu bëri ak Pokola. taxawal mm-hmm. ko si suba bi. dëgg la. waaw. Zoss kenn du ko duma daan ko. déedéet. déedéet. dëgg la. bu bëggee daan Zoss suba. Mm. na ko na na na ko may na ko jox respect. waaw. épuisé ko mu ñëw. mu bañ yakam ci lamb ji dara jàpp ne bañ a ne xala la hmm man ma la mën dama la duma dal bu ko defee joom deug la te itam bu ñu hmm sey musa dama xalat ne waw sen combat premier sen combat sax mu sen combat premier jël ba sax mu na la ñàkk bañ a leer la ilaha illallah ñu waat la ñu ñew di bëre waat deug la ah su ci Aha, bu mbett kenn deug la waaw parce que combat boobu dafa combat dama ko xool mu doy waar daal combat boobu dafa bëri lu dafa dafa jaxasoo trop. Mm-hmm. Ah, Ada Fass ak ak tax daal suba daal euh, euh, euh, Liss. Mm-hmm. na ànd ak dal. Mm-hmm. ànd ak teg tey. bañ indi fukk xale. na ñëw xam ne combat suba bii bu ko daanee. moo ko yóbbuwaat ci làmp sori. moy tax mu beure wat mu beure encore mu beure wat ay lamb deug la. waye aussi bu ko do dané hmm ah xalé yaangi ngi fi tos da ciy de. da ci jëlaat de waaw. te combat suba bi nak combat sos ak ak ak ak ak Liss hmm sey Moussa combat bu lo xamné combat bu doy war la. wallahi bu doy war lay doon. lu ci nekk nga daan sa morom. waaw waaw. maa lo xalé sey sëñ Moussa. lu wér nga wax. Ah. ku ci ne mun ngaa daan sa morom. waaw. dama gis combat bob dal beuri jaxaso trop. bari jaxasoo. waaw. dëgg la. moo tax ma ne après combat yooyu. buñ def violence waaye. waaw. waaw buñ def violence. violence de suñu ébu. dafa xam ne nii lu ci baree baree baree baree ci am. te du ci am. waaw. Mhm. waaw Ibu sëñ Ibu violence bi sax xam nga man dama ko ragale ci diggante waa Ada ak waa Liss ndax ñoom ñaar dajeeguñu mais booy xool daal moom mooy loolu daal. ah sëñ Moussa daal. waaw. mboolem daal mboolem daal mboolem daal euh, euh, ki nga xam ne moo organisé lamb ji. Hmm. na jël ay matuwaayam. bu baax a baax. sécurité bi. Hmm. dañ jël seen matuwaay yi. dëgg la. supporters yi. Hmm. nañu ànd ak dal. te ne làmb ju ne jaar na fa. dëgg la parce que combat yu ne jaar nañ fi. Mhm. yaakaar naa ne combat mënut a dépassé combat Modou Lo Ama Baldé. a dépassé combat Tapha Tine Balla Gaye bii di ñëw. mukk ci àdduna. yaakaar naa ne kon lamb yooyu noonu kon combat yi suba yi nañu xam ne ay doom ay ñu ci yëpp ay ay ay ay ay ay kenn nekku si doxandeem yëpp ay ay ay doomu Sénégal lañu. dëgg la. kon nag damaa bëgg ñu woote ci ñu woote ñu ñëw ci fair play. dëgg la. supporters yi ñëw ci jàmm. Mm-hmm. ñëw ci dal. Mm-hmm. ku sa mbër daanu. Mm-hmm. nga encouragé ko. dëgg la. ñaanal ko bañ benn violence xa gunge ko xam ne da daan ñu daan ko tey. ku sa mbër daan itam. kontaan ba def la warta def. waaw jàppal rek ne dafa war a daan daan na tey. bu subaa nii mu daanee mun nañ ko daanee noonu. dëgg la may boobaay aussi dama koy dama ko ni may kontaanee tey. Mm-hmm. dama ko war a kontaane te xam ne làmb daan ak daanu moo ànd mm-hmm. képp koo xam ne bëgguloo daanu bul takk sa ngemb wallaay dëgg la képp koo xam ne aussi bëggoo sa mbër daan wala mu daanu bul dem ca làmb ja dëgg la de kon damay woo supporter ci fair play ñu ñëw ci jàmm mm-hmm. ñëw ci dal nga xam ne làmb ji suba dafa war a mun a dafa war a mun a taaru làmb la joo xam ne histoire la joo xam ne dañ ko war di nettali ci ci ay ci ay ci làmb ndax bu dee stade ambila ambiance lañ soxla dinañ ko am. voilà dinañ ko am. bu dee stade fees dal lañ bëgg dañ ko am. Mhm. bu dee ay combat neex la ñuy dañ ko am. Mhm. kon yaakaar naa ne suba bu ñu yàq làmb suba bi ci ay ci ay ci ay violence wala ay ay problème. dëgg la. loolu lay artu ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yi di ko artu ñi nga xam ne moom ñoom ñooy takk ter yi. incha allah. di wala sëñ Moussa. yéen ñi nga xam ne yéen ay xorom làmb ji leen bàyyi ngeen di dugg ci biir làmb ji. mooy yo. nga xamni ni lepp lu ne ci biir lamb ji ngeen mën ko gëna jox ko nga xamni ñoo ne ci biti deug la ndax estamte ni yaakaar naa ne Moussa lepp lu fu mëna neex wala mu xaw fi ci yéen la juggé deug la seigne Moussa lamb tay lamb fu mu da ci àdduna tay si ko waral wallahi deug la su su su su contrat amee yeen yéenay dem ñoy dem de su su lamb ji bëggé neex yeen a koy médiacé ba mu neex wallahi deug la su su jël bi amé yeen a koy leera ba mu lér wallahi deug la kon sëñ Moussa dañ leen may jox seen gëdd sa bàyyi leen nga xam ne yéen ñii takkandeer kenn du kenn du ko xañ li nga xam ne moom moom moom la war a def. wallaay dëgg la. kon nañ leen bàyyi yaatal leen ci làmb ji. Mhm. di wax ne sëñ Moussa. waaw. et bu ñu jugee ci loolu. waaw ñu dugg ci réew mi. dañuy dugg ci réew mi sëñ Moussa. ndax sëñ Ibou yàgg nga ma dankaafu ci Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye. sëñ Moussa ñaata vidéo laa ci def. wallaay asim bari na. sëñ Moussa yaakaar naa ku topp vidéo yi. yaakaar naa ne yàgg nañ di dànkaafusal lépp lu ñuy dànkaafusal sëñ Moussa ñëpp di teg nañ ci seen bët. ba tey jii ñu yem nii. xam nga nee la woon kii nga xam ne kii si suñu ministre Ousmane Sonko. Hmm. nañ ko defal na na na def ay moom. dëgg la. yaa ngi dégg. waaw. ndax pour pour coow li. Hmm. yaakaar naa ne loolu yaakaar naa ne mu ngi commencé. dëgg la. di wax ne suñu réew mi. Hmm. dina président yi aussi na def ay sarax moom itam dëgg la moom itam am na ay saraxam spécial yu mu war a def mhm. yaakaar naa ne sëñ Moussa mais sëñ Ibou waaw du ma nangu nag benn affaire waaw mën nga dankaafu waaw mën nga wax li nga wax bëgg li nga bëgg a li nga gis ci réew mi waaw mais du ma nangu tey nga joxe saraxu Ousmane Sonko waaw wala saraxu Basirou Diomaye Wow, yag nga wax to sa bo waxe sa numéro mu ngi ci écran bi kum kumu soxla na la wo deug la seigne moussa waaw seigne moussa waaw yaakaar na nak sita yi bari won nañ ci rew mi deug la yaakaar na seigne moussa ban ci dankafu waaw yalla suñu borom dafa gum na jamu dal dal am ci accident yi mu ngi nonu kon seigne moussa waaw ba dekk bi jir jir jir jir jir jir mhm. ka bi metti Wow. waaw ñuy dankafu ndaw yaakaar naa ndaw yi deegal nañu vraiment mais yaakaar naa ne fu mu toll nii dëkk bi stable na. dëgg la. sëñ Moussa kon daje dafa jot. Mhm. ñu bàyyi ñu xel. dëgg la. dafa jot sëñ Moussa. ñoo mhm. ñu suñu gëdd. dëgg la. di sëñ Moussa. Mhm. dañuy waxee si nopp si bakkan. déedéet. dañuy waxee pour far. dëgg la. mais mboolem bi ñu la wax ci doomu aadama. bu xeebee lañ ko wax. bu soobee suñu borom dañ teg bëtam. dëgg la. a yooyu nag sëñ Moussa. waaw. li nga wax lay def wa ku la soxla na la wo numéro baa ci écran bi ama woo ku ne nga wax ko ko te jege leen waaw daa lax ne buñ defé li ak li ak li def ko deug na bu sobe sin borom jam hmm. rek dina am ci kattanu yalla yent bi waw waw di ma ne sëñ Moussa ni ngi ni wat aussi amateur yi amateur yi di ni supporter yi deug la di ni wat encore mhm. axlu lamb ñu leen di ni wat encore bu baax a baax deug baax la di wax mhm. ne CNG bi aussi kami itam hmm da xamne aussi njit la ta buñ la jiitalee da ngay motu njiit deug la amna yu bari yo xam ni warna warna na war na lamb ci wa ñak mu wara ci lamb warna warna ci mëna tek tankam ba du ci am deug la di wax ne rek nañu tëddee njaxane tout temps ci ci ci mbeuri mo mbeur mu ndaw xam mbër mu mag mhm. ndax li Moussa képp ku dag licence rek danga toog ne nga wala ñom ñepp a bokk yow jaal bo ci wa licence ci bind ci la kon nak yakarna nañ leen yemalé ñom ñëpp. wallahi da xam ne nañ bayyi xel ci xam ne tey képp koo xam ne mbeur mu mag nga mbër mu ndaw nga mos nga doonoon. dëgg la. ba dégg daal hmm di wala ne sëñ Moussa. waaw. ñu ngi waxtaanaat encore di waxaat ne. képp koo xam ne yaa ngi Ngoy TV. hmm à travers aussi. hmm suñu groupe bi nga xamne mom moy mooy groupe groupe bi nga xamne moy mooy groupe bi nga xamne ne Sëñ Moussa. waaw maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci biir groupe bi. wallaay ndeysaan. góor jigéen mag ak ndaw. dëgg la. maa ngi di jox loxo ñoom ñëpp di leen nuyu te di leen wax ne maa am naa seen mbégte. macha allah. di leen baalu àq waa encore di leen baalu àq. dëgg la. di leen wax ne maa ngi di ñaanal jàmm ak sutura wër ak ak ak gudd fan. te itam di leen wax ne képp koo xam ne yaa ngi ci groupe bi. Hmm. sëñ Moussa boo ci nekkee ren ba déwén. Hmm. soo gis yow changement. Hmm. ci groupe bi te bañ cee dëgg la di seigne moussa Aha. ñu ñoo war nuyuwaat la bitim réew bu baax. wallahi deug la. di len di len fatte mukk. dedet di len ñaanal guddu fan. di len ñaanal jam di len ñaanal sutura. amin ya rabbi. di len ñaanal aussi teranga te den wax ne yàlla suñu borom yalla lay suñu borom dimbal len guddal sen fante yok sen wër. amin ya rabbi. ba dese wa len sen jabor gi bañ mun fay ñew encore nekkat ak sen jabor gi ci jam ak hmm di wat aussi seigne Moussa ñi nga xam ñoo ci rew mi. deug la dañu bay war xel aussi ñu ngi leen di ñaanal guddu fan ak wër sutura mm-hmm. di wax ne képp koo xam ne yaa ngi déglu ngay TV mm-hmm. ak foo la a nekk rek ñu ngi lay jox loxo te di la xam ne ñu ngi lay baalu wax te di la baalu wax jërëjëf yaaram te dina wax ne ngoy TV nañ ko nañ ko topp wallaay nañ koy topp te xam ne foofu la mburu mu di xeyam xayamee la lay lu wér nga wax yaakaar naa ku dem tey ba ay ay ay ñoom faram ak ñoom ñëpp di wote ci Ngoy TV wallaay ndeysaan ay nit yu baax yaakaar naa ko war nga xam ne Ngoy TV asante ni moom ku bañ ku nangu Ngoy TV moo ci kaw dëgg la da ci kàttanu suñu borom day yokk rek waaye dootu wàññeeku. wallaay dëgg la yaaram. di wax ne sëñ Moussa. ñu ngi nuyu Ousmane Diouf ma ca waram Odaar ku nekk Kaffrine. waaw. kooku itam ci fan si fan si la ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax a baax. macha allah di nuyuwaat encore. ki nga xam ni moom mooy euh, Mansour borom Padois di fan su Modou Lo. waaw fan moom itam ñu ngi ko jox loxo di ko nuyu baax a baax te di ko baal di ko baal sita <laughs> waaw ci yàlla sita eh, yaakaar naa seen face à face léegi mu ñëw léegi mu ñëw léegi ñu commencé dugg ci bu baax a baax a baax voilà mu ngi noonu loolu sëñ Moussa ñu ngi nuyuwaat encore ah, ah. Euh, ki nga xam borom Gambi borom Gambi ñu ngi koy nuyu di ko sant moom mu ngi ci biir groupe bi wallaay wallaay ndeysaan mu ngi ci di nuyu Mbaye moom itam ñu ngi koy sant di ko baax borom Gambi di nuyu aussi Ahmed Naar bi nga xam ne bi nga xam ne moom mooy borom Mourtani dëgg la ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Mourtani ba soppee Mourtani yi bari nañ loolu ñu ngi leen loxo bari nañ di nuyu encore ki nga xam ni moom mooy taaliba Cheikh bi moom borom Pikine mhm. moom tam maa ngi koy nuyu baax di ko jox au passage jërëjëf di nuyu taaliba Sëñ Saliou bi nga xam ni moom moo nekk na ki nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, soxna soxna soxna soxna kii mu ngi mu ngi mu ngi Italie ah waaw waaw waaw non taaliba sëñ Saliou la bu ma déggee dina xam moom bëgg sëñ Saliou lool sëñ Saliou boobu waaw moom tam maa ngi koy nuyu baax a baax a baax a baax a baax di ko jox loxo di ko jox wàcce waayam jërëjëf di wax ne sëñ Moussa mhm. ku lim juum wallaay ndeysaan moo tax fi mu nii ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ñëpp rek i bëgg ñëpp di wax ne képp koo xam yaa ngi déglu Ngoy TV daal waaw moo xam nga nekk fii moo xam nga nekk ci nga nekk ci bitim réew mhm. ñu ngi lay nuyu di la sant di la jox loxo di la wax ñu ngi lay baal àq di baal àq. incha rabbi yow sëñ Moussa sëñ kilifa diine yi. waaw. nañ leen di bàyyi xel di leen ñaanal. dëgg la. yàlla suñu borom bàyyi leen fi te yàggal leen fi. dëgg la. ndax ñoom seen yàgg suñu njëriñ la. dëgg la. ndax yaakaar naa tey mhm. ñoom yaakaar naa ne bu ñu gisee dara lu yàqoo ñu daal di ñu daal ci gis jàmm. dëgg la. kon yaakaar naa ay wéeruwaay lañ ginnaaw yàlla yent bi kon nañ leen ñaanal baax a baax yàlla suñu borom yàggal leen fi di ñaanal aussi suñu mbokk suñu mbokk suñu mbokk chrétien yi waaw ñoom itam aussi ndeysaan Abdou eh, eh, Seck ñu ngi eh, koy nuyu waam tam ñu ngi koy ñaanal baax a baax a baax a baax ndax moom tam ñoo bokk benn Sénégal gi wallaay dëgg la te yaakaar naa ne bu ngeen bokkee benn mbir mm. lu rafet rek dafa war di rafet kon nag yaakaar naa ne ñu képp ko xam yaa ngi ci doomu Sénégal ñu lay jox loxo te di la nuyu foofu fu mu di nekk dëgg la di wax ne sëñ Moussa waaw Sénégal dëkku teranga la wallaay dëgg la dëkku naataange la wallaay dëgg la dëkku jàmm la. di wax na encore nag. Hmm. incha allahu rabbi comme nawet baa ngi jub si. waaw ci kàttanu yàlla bi ñuy defaat benn émission daañu joxe ay ay sarax. ay sarax ci nawet bi. di waaw ci nawet bi digtal aussi ñi nga xam ne aussi ci nawet bi nga xam tey am na boo ko defee. Hmm. ci kàttanu suñu borom nawet bi dina dugg boobu muy génn bu soobee suñu borom te sëñ Moussa du ci am benn gàllankoor seen njaboot duñ ko am incha allahu rabbi kon nag ñu ngi nuyuwaat ñëpp te day wax ne incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla te bi léegi bu soobee suñu borom nag ñu ngi desuwaat ñu ngi ñu ngi desuwaat Ndakaaru ci kàttanu yàlla amul benn problème yaaram yow na sëñ Moussa waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Ibou di nuyu ñaari madame Ndiaye yi jërëjëf sëñ Ibou di leen maanaam di baalu àq di leen baal àq baal nañ la bu baax baax di wax ne sëñ Moussa bi yëpp ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay baalu ak te wax ne muy Moussa kàddu yi dafa rafet. wallaay baal naa ñëpp. di nuyu kan? encore Moussa sëñ beneen Moussa boo xam ne ndeysaan moom itam. Eh, reef ak la dëkk moom itam maa ngi koy nuyu baax a baax a baax. ndeysaan ndeysaan. di nuyu encore fan si Balla Gaye yi. waaw waaw ñoom itam ñu ngi may woo ñu ngi may nuyu moom itam maa leen di nuyu baax a baax a baax a waaw ñoom itam vraiment ñoom itam combat Tapha Tine ak Balla dafa doon lamb joo xam ne Moussa. waaw. combat la boo xam ne yaakaar naa combat dootu ko dàq ci àdduna parce que ñaari ñaari ñaari ñaari supporteurs yëpp. Mm-hmm. ndeysaan sëñ Moussa dafa mel ni que ni combat man maa koy bëre. wallaay ndeysaan. supporteur Tapha Tine dañ may woo. wallaay supporteur Balla Gaye dañ may woo. wallaay waaw. sëñ bu lamb ji man damaa tiit sëñ bu lamb ji man damaa tiit yaa ngi dégg maa ngi leen ah, en tout cas daal lamb lamb lamb la ju neex waaye dañ bàyyi rek ba yàlla ba ba ci kanam waaw. Ah. waaw sëñ waaw combat la waaye sëñ Moussa ah, làmb jooju daal yal nañu yàlla def jàmm waaw ñu yeggee ci jàmm bëri ko ci jàmm incha allah que le maire gagne hmm. pour daal ñu xam ne yàlla yàlla seen borom dogal tey Moussa kon ñu ngi baalawaat ñëpp ak tey baal ñëpp ak di wax ne bu lu ñu ci wax loo xam ne ay njumte la hmm. nañ ñu jéggal te xam ne ñun ay jaam yu xeebu la ñu lépp xam ne wax nañ ko fa aussi ci loo xam ne nii ay kàddu yu rafet ay kàddu rafet la dañ uh-huh. Moussa du suñu mën mën du suñu coobare yàlla suñu borom moo ñu dooleel di waxaat ne képp koo xam ne yaa ngi déglu Ngoy TV ak foo mën a nekk hmm. góor ak ak ndaw ñu ngi sàkku ci yow ñaan di la wax ne ñu ngi lay tàllal ay loxo nga ñaanal ñu ñëpp lay ñaanal kon ñu ngi sàkku ñëpp ñaan di wax sëñ Moussa asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sëriñ Ibou borom Ngoye Mbayar am ñu mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax ci yow ci xam-xam bi ak nangu bi wax dëgg fa yàlla nga nangu partagé ak waa Ngoy TV kon ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di leen wax gars yi Serigne Ibou côté na lamb ji lundi ba mardi dina ñëw décortiquer lépp incha allahu rabbi kon ñu ngi gërëm ñëpp waa bitim réew bàyyiwuñu kenn waa ñu nekk fii nii ci Sénégal itam ñu kenn képp kuy topp Ngoy TV rek ñu lay gërëm bu baax di la sant di leen wax ni ma koy waxee saa su ne noonu laa koy tëjee képp ku ma sopp te sopp Ngoy TV waxal Serigne bu borom Ngoye Mbayar yal na fi yàgg te ci barke yonente bi salaamaaleykum wa rahmatullah oui pour yow mi nga xam ne dangay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala danga nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV ngir di actualité ak information yu leer na service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 voilà 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV Dal, c'est le meilleur abonné di am say actualité ak say informations. yu leer TV dal du ay <laughs>